Mamel ñaari tali Ngor Ouest Foire Parcelles Assainies Petit Mbao Rufisque Scat Urbam et Sicap Foire ci région yi am nañ ci fukk ak ñeent yu tëddee nii ñeent ci Saint-Louis ñett ci Kolda ñaar Sédhiou benn ci Koki Matam Mbacké Richard Toll ak Somone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 ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ak ñett ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fanweeri junni ak juróom-ñaar ak juróom-benn téeméer ak fukk ak ñeent wér nañ si junni ak juróom-benn fukk ak ñett ñoo ñàkk seen bàkkan mu des ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom si lalu hôpital yi ak malade yi nga xam ne ñu den topp ci biir kër yi.